le DG Souleymane la parole. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci beaucoup, la jeunesse. Assalamu alaikum, mbadi mandikol ana kamoylal mbal be kontona mbal jayla nsewota bake bandiraɓe sehlaɓe mi salmini on sama mbokk wolof yi maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm mbokk saraxule ñu ngi leen di wax ne ani soxoma mbokk manjaki ñu leen di wax bu tàkkaloo bokk Mankagne yi ñu leen di wax ULEF yaakaar naa fàtte wuñ kenn kontaan lool tey ñëw fii si suñu wetu frère muy le docteur Abdoulaye Baldé ñu ngi nuyu ministre de la République yu teew fii le professeur Moussa Balde, le président Benoît Sambou, ministre yu fi le directeur général, nous ak directeur général, nous ñu leen di nuyu à vos et qualité. lol, nous, avons ndaje bu am solo bi ah ya naa kuya ku Ziguinchor yaa ko moom tey weddi gis bokku si weddi gis bokku si docteur Abdoulaye Baldé bu ñu wooyee nañu Souleymane damay organiser ndaje malgré que am neen calendrier chargé parce que heure bi waroon na ma fekk sali parce que dina am ndaje 10 heures suba ak employé waaye dama ne damay bay lépp ñëw soutenir ko parce que gis ne ne Ziguinchor waay jamono ji ñi ngi rëccu choix bu ñu defoon ndaw ñi ñi ngi jooy mag ñi ngi jooy ñëpp ngi jooy waaw waxati ko dama leen di laaj maire boo fi fal lan la fi def excédé di soutenir feetu Pâques

le président de la république Macky Sall parce que nous na ñu nga xam ne bu